jërëjëf mbokk mi ala kulli xaal tey ñu fa yéene leeral lu am solo mu bari ñu koy laaj lool mi gént di sàcc wa ilaa nga gént ñu sàcc la ala kulli xaal nag ñaar yëpp benn da cee gënut ndax lu ci ëpp ay jafe-jafe moo ci ëpp mbokk mi nga xam ne rekk ci misaal daa teg dara gis ñu jël ko bu dee ay bagaat la gis ñu jël ko loolu it mën nay tegtale ci moom muy dugg ci mbir moo xam ne daa leeru mbir mu lënt lay doon wa ilaa dana bari ay jafe-jafe ci moom gént nag am na ci ñoo xam ne nañ koy géntee noona lay amee waaye li ëpp ci nit ñi nag ni ñuy génte du demee noonu ñu bàyyi ci xel baax baax ndax am na ñoo xam dañ leen di wan ab diir ñu gis ko am ñoo xam nag dañuy gént nga taawil leen ko mooy tax seen gént gi mën a sonti du caagin ko gént sàcc rek dangay caagin dal dan lay sàcc déedéet ñu bàyyi ci xel baax baax ba tey mbokk mi nga xam ne dafa yor doomam teg ko ci barab ne jékki-jékki dañ koo sàcc ba tey it mën nay nekk gàllankooru seytaane mën nay nekk tawat yoo xam ne mën na ko sonal lool muy tawati seytaane mën na koy indil ay gàllankoor sàcc nag ñu lay sàcc mbaa ngi sàcc benn bàkkaar yu bari mën na koy faral di waral mbaa jëmmi nit ki nga xamante ni mooy sàcc jubadi waa kulli xaal man ngeen a jël numéro yi incha allahu rabbi ñi nga xam ne gént rek mooy seen ajo ñu ngi leen koy waxaat aajo wut kenn di woot na envoyé vocal wax géntam waxtu wun amee jot nañ leen tontu ba tey ñi waxaat ñi nga xam dañuy envoyé gént ba noppi di woote naan envoyé naan tontu leen ma ñuy bàyyi xel ne ñun dañoo am ay yitte am ñu ni soxla toogun di xaar rek message yi ñëw ñuy tontu nit ñi yenn yi nag bu jot gi amee tuuti ku envoyé rek ci saa si mañ nañ laa tontu am ñoo xam envoyé ab diir kenn du leen tontu ñuy bàyyi xel loolu baax baax ba tey ñi nga xam ne mën nañoo woote mooy ñi bëgg seet wala ñu bëgg li si xaar wala ñu bëgg am lu ñu bëgg a xam seeni mbir wala seen tabia wala seen sarax ak yu ci aju ñooñu bu leen neexee mën nañoo woote waaye ñi nga xam ne ñoom gént rek mooy seen yitte aajo wut kenn du ci woote nag nañ envoyé vocal bu te kenn bind nag ko xas jël numéro ba enregistré ko bul envoyé message écrit envoyé message vocal nañ la tontu. ba tey ñi nga xam dañuy woote laaj ba xam numéro am na whatsapp numéro am na whatsapp waa ku ko enregistré gisoo ko da nga koy supprimer enregistré waat ko dina dikk ñu envoyé ci vocal. ndax jot gi dafa mënut ñëpp kenn ku ne mu lay woon naa la enregistré sama numéro pour envoyer message pour ma man laa gis loolu ñu bàyyi ci xel ameewut jot gi dafa da koo bëriwut noonu ñu ngi leen koy ñaan bu baax nag di waxaat liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk incha allah eh, lu koy defar rek ñun ñëpp ñoo ko war a bàyyi xel dañu moytu lu koy yàq kon numéro yi incha allah mooy 78 443 75 27 numéro yooyu incha allah rabbi ku ci bëgg a woote mooy ñi nga xam dañuy seet wala ñu listixaar wala ñoom jafe-jafe ci wàllum émérite wala ndoxu siti wala xeet yi mel noonu am nañu mën a woote wala ñi nga xam dañoo mbokk moom daa jékki-jékki dem rek kenn xamatul ci lu mu nekk daa réer wala daa faatu wala ci yan loxo nekk yëpp soo neex mën nañoo woote kon mbokk mi nga xam ne daa gént ñu sàcc ko ci barab loolu it mën nay tegtal ab lënt muy am lënt muy am ci moom ci ay mbir yu muy dugg ba tey ki nga xam ne daa gént nit sàcc ko te mu xam nit kooku wala ngay liggéey ak nit gis mu sàcc la mbaa nga sàcc ko lu ci ëpp ay wor dana koy waral ay wor wala ay jafe-jafe yoo xam ne yow ak nit kooku mën ngeen di ko jànkonteel ba tey gént di sàcc yow nit ki nga gént di sàcc loolu baaxut lu ci ëpp bàkkaar yi bari mën na koy faral di waral wa ila ak ndëngte goo xam nit ki dana koy faral di def teg ay bagage tamit ñu jël ko lool it dañ koo sàcc ba tey seetaan dana koy faral def wala jinné yi ñoom it dañuy faral di jël mën ngaa teg dara gis ñu sàcc ko loolu dañ koy faral def ba tey gént lu bari ñu lay sàcc loolu it mën na nekk ay pexe yoo xam ne ay nit a ngi koy jooyal jëm si ko ci yow euh, ba tey mbokk mi nga xam ne day faral di gént mbooloo di ko dàqe ñu misaal njiñ ko sàcc loolu it mën nay waral ay pexe yoo xam ne ay nit jëmale ko ci moom way laa yoo xam ne mën na koo am gàllankoor woo xam ne mën naa bàyyi koo ci seytaane Euh, ñi bàyyi xel ne gént dafa am solo lool ci doomi aadama yi euh, ba tey mbokk mi nga xam ne daa gént ñu jiiñ ko sàcc euh, jiiñ sàcc moom i nekkul lu gën ay jafe-jafe yu bari tamit dana koy waral ngay jànkuwanteeg ay jafe-jafe danay war a ngay génn génn ñu lay jiiñ sàcc wa ay gàllankoor yooy am ci mbir mooy lijjanti wa nga di ci dugg danay faral yenn saa yi ngay gént ñu lay sàcc gént liggéey nit mu sàcc la tamit ay wor la yoo xam ne mën naa dox sa diggante moom kon loolu it lu mat di eh, bàyyi xel la baax a baax kon eh, gént sàcc mo xam da nga gënt di sacc wala ila nga gënt ñu lay sacc ñaar yëpp benn nekku ci lu gën euh, lu ci ëpp ay galankor wala ay xat-xat wala ay jafe-jafe wala ay torof torof yo xam nit ki jankonté mom da dana koy waral way amna ci ño xam ni gënt sacc mom seeni bakkar yu bari mo koy waral amna ci ño xam nak seenu wala seenu dëngëté inshallah rabbi mo koy